إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nu ngi sax sunu borom subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi gërëm yàlla di ko bàkk di ko kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ne sunu borom moo ko jagoo bi mu nu defalaatee tawfiq ba ñu dellu si waat ci ron keppaaru xam-xam di waxtaanee saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ulaika al qawm aw ulaika al athaar gaa yooyee ñu sell ñu set ñooñee nga xam ni ñoo daroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu set ñu sell ñooñee nga xam ni yàlla moo leen tànnoon def leen saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa ci lu dul benn du ñaar ni leen saxaaba ci boppam nekk ko du tax nit ki bëgg koo ne du tax nit ki ne ko waaye comme ni ko Abdullah ibn Mas'ud doon waxee ñooñu ay góor lañ woon ak ay jigéen yoo xam ni ixtaarahum allahu li sohbati nabiyi yàlla moo leen tànn ngir ñu war a ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xam ne allahu aalamu haytu yajalu risalata suñu borom mooy ki gën a xam kan lay yónni mu nekk yonente góor yooyu ak jigéen yooyu nga xam ne bokk na ci seeni mandarga mooy laa tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah commerce bu dox conteer yi wàcc chèque yi ñu war a tëjee boo yi ñu war a retiré marchandise bu war a wàcc bu war a dugg yooye musul dox seen diggante ak def la leen suñu borom def la woon sabab sa mooy ñoom ñoo gën a tiit kuy tiit ci bàyyi seen bis bi ñuy dajeeg seen borom subhanahu wa taala góor yooyu ak ay jigéen yooyu nga xam ne bokk na ci seeni mumayasaat wala seeni mandarga mooy jigéen dootu tegati ci kaw ay lubbam doom yu mel noonu di leen nàmpal ila yawm al qiyaama bokk na ci seeni mandarga mooy nit yi nga xam ne radiyallahu anhum wa radu anhu wa hum yaishuun yàlla kontaan na ci ñoom gërëm leen te fekk booba diplôme am nañ ko te ñu ngi dund faatoo bi bal ñenn ñi sax yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel leen aljanna te fekk faatoo bi moo tax ñii de aw nit lañ woo xam ne jàng seen tur dafay ko am ay jeexintal soo di waxtaanee dund saxaaba yi dafa am ay jeexintal yu muy def ci xolu aji gëm yàlla bi moo tax suñu borom inna fi qasasihim la ibra jaam yàlla yu baax yi yonent yàlla yi toog di waxtaanee seen dund ak waaw la seene ak fàttaliku la seene bokk na ci njëriñ yi ci ne mooy jullit bi ñi ñu koy waxtaanal ñooñu la sunu borom bëgg nga mel noonu dafa mel ni daal kon waxtaanee dund saxaaba yi mooy ñi sa borom bëgg nga mel ni noonu lañ lay waxal ndax saxaaba yi yàlla dafa am nu bëgg jaam yi mel ni sunu borom xaq ku ñuy wax Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yónni ko ci umma bi yonent bi ñëw nekk ndaw lu mat ndaw melo melokaan bi sunu borom bëgg jaam ñu mel ni saxaabatu kiraam mu nekk ndongoom yu mag yu njëkk yu gën a mën a wat gën a mën a copier gën a mën a toxal bal da ngay gis ci alimul xadis xadis boo xam ni kéemaan la waaye dafa reelu lu tax mooy silsila ba na muy tëddee ci ngay xam ne saxaaba yi kenn dàqul la ko bii xadisa yi boo xam ni lu mat ñeen wala juróom ci ñu bokkul jamono kii di saxaaba kii di taabi'i kii di taabi'i taabi'i ba mu mat ñeent wala juróom yoo xam ne kenn ku tey nekk la xadis ba ma ngay jàpp ak sikimam di xëcc su paree mu ne ndaw ngay may jàngal est ce que xam ngeen lu tax ma xëcc sama sikim mu ne déedéet ñu ne sama sëriñ bi moom ma koy jàngal nii la doon def te moom koy jàngal ba ne est ce que xam ngeen ma xam def li ma def ñu ne ko déedéet mu ne diw noonu la doon def kooku ba muy jàngal mu ne est ce que xam ngeen lu tax ma def ko ñu ne déedéet mu ne Abu Hurayra ba muy jàngal xadis bi la doon def Abu Hurayra mu ne est ce que xam ngeen lu tax ma di ko def mooy gis nga ko yonent bi doon nekk na doon xatub si kii kon ndaw ñi wallahi ñoo gën a mën a taxaw ñoo gën a mën a toxal silsila yu mel nii benn la ci waaye ñi jàngi ilmul xadis xam nañ ñu bari na lool ci suuf kon saxaaba yi kenn du ñoom waxtaanee seen dund ay njàngal yu rëy moo ci nekk kenn ngi nii ku ñu nekkoon ci dundam muy kenn ci soxna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy aishatu ummul muminin radiallahu anha wa arda dafa mel ni noo ngi war a tàmbalee ci alfaqihatu rabbaniya allati xumila anha rubu sharia ku dégg dëkk bi ku dégg diine gi nga xam ne dafa jaamu yàlla subhanahu wa taala ba jeex tak ci jaamu yàlla nga xam ni mën naa ni l'islam buñ ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj ba ko ñeenteel doxal nañ ko jëlee ko ci Aïcha kon un ko njàngale l'islam ni mu bare ak ni mu yaatoo ñu ne la buñ ko xaajoon njàngale l'islam yépp ñeent ñeent xaaj benn xaaj ba ñu ngi ko taxal jëlee ko ci ne Aïcha radiyallahu anha parce que titre bi dafa doy firnde buy wane kii ku yenn woon na mu lu bari ci xam-xam tomb bi nag bala ma ciy fekk benn jéeg damay sàkku ci mbokk yu jigéen ñu déglu bu baax buñ bind bii dëkk la bindub ndayaay te yëpp ñoom la waaye bind bii daf cee rawat ndax tomb boo dem ci yi ñu doon waxtaanee rek bu la tëyee am na ñu jàppandi ci moom ci ñoom ci ñiy dund tey waaye tomb bi ñu doon waxtaanee tey muy fóore koo xam ne Aïcha nekkoon na ko fóore ci lislaam tey damay wax ni jigéen ñëpp ñoo ci boole maase bal nekk fóore ci jigéen daa xew yi te wallahi warul woon a xew yi ndax jigéen góor ñi mosuñoo dem bàyyi leen ci toxal sharia di ko yegg ci ñi nga xam ñoo ñëw ci seen gannaaw fàttalikul ànd ak man ci surtout ahzab suñu borom ma nga lay fàttali lu am solo wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati illahi wal xikma dékkle dékkal ak jàngale ngoo ak digle ngoo wal amru yaqtadi al wujuba inda ulama usul sunu borom da lay tànn nga jàng li nga xam ni moom la ñu wàcce ci yow muy alquran dafa war nga jàng ko li wàcc ci kër yi yéen soxna yéen soxna muy alquran jàng ko ak nafar ko xam lu ko def leen war soxna yonent bi nekkatuñ ci kër yonent bi nekkul ci waaye soxna yi leen remplacé ñi ngi fi alquran ji tamit mu ngi fi ba tey kon laaya ji dafay firndewu ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wane ni góor ñi waruñ bàyyi xel jigéen ñi gannaaw yonent yàlla mi ngi wax ci xadis boo xam ne xadis la bu wér mu ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam talabu al ilmi faridatun ala kulli muslim donte nag lenn ci riwaayaat yi dañuy wax far talabul ilmi farida ala kulli muslim wa muslima dëgg la maanaa bi boobu ci boobu wér na waaye ci ilmul hadis maa tax muslima dafa bàyyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin moo wér wa muslimatin bokk ci waaye wér na ndax li nga xam ni moo andi góor moo ko andi jigéen loolu yeneen i njàngale moo koy firnde kon baata muslim fii góor geeg jigéen gi ñoo koy bokk sàkku xam-xam dafa war julit bu góor waaye dafa war ci nit julit bu jigéen mbokk yi mbir yi nga xam ni ak borom xam-xam moo ko war a xam di toog di jàngale ak ku amu matala woo ko mu ubbee la wala nga dem ci moom mu ubbee la yooyee fardu kifaaya la su ñenn ci umma bi taxawee jàng xam-xamu lislaam ba ku amul lu nga am koo ko laaj su ko ñenn defee wàcc nañu ko def ndax fardu kifaaya la bàyyi na xel tomb bu may wax bu baax tomb bu am solo waaye sa jaamu yàlla sa julli la koy baaxal la nga ci soxla sa woor jaamu yàlla yi nga xam ni sa faratay dund la pour nga xam noo koy defee loola fardu ayn la jub dem jàngi ko lu war la soo ko deful da ngay am bàkkaar moo tax ma lay wax ni jub pour jàng nekk fóore ci xam-xam ba man di dindi réer ci sa bopp di ko dindi ci ñeneen kooku fardu kifaaya la ida faabitil faaru saqata anil baaqi waaye su fekkente ni xam ni ngay jaamoo yàlla loolu fardu ayn la soo ko defal da ngay am bàkkaar buntu boobu nga bàyyi xel bu baax kon al imam Safawi wala boog al imam Abu Ammar mi ngi nekk li mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam على رجل كانت عنده وليدا فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران loolu xadis la boo xam ni mi ngi ci Buxaari mi ngi ci Muslim pour wala da nga war a jàngal jigéen ñi man yéen ci yàlla sax da doon soññ ci nan jàngal jigéen ñi yéen yàlla mais képp koo xam ne yàlla wërsëgal na ko ab jaam bu jigéen bu nee sunu jamono wala ko tuddee surga bu jigéen wala mbindaan bu jigéen ak terme yi ñu koy tuddee yéen yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam nga jàngal yar ko rafetal ni nga ko yaree jàngal ko rafetal ni nga ko jàngalee ba pare mu nekkoon sax yaam nga goreel ko daal di koy jël mu nekk bu soxna yéen yàlla dañ ne ñaari tiyaaba la yàlla kay subhanahu wa taala ngir soññaate ci war gu mu war ñu jàngal soxna yi kon mbokk yi jigéen ñi de ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam desuñu woon gannaaw ci xam-xam damay wax ni mbokk yi ci muxaadara boo xam ne ñu ngi ko doon def ci min axbaari nisaa salaf wa axlaaqihim lenn ci melokaani jigéen ñi salaf ak seeni jikko man jeltu gannaaw gii ma gis tey ci xam-xam ci côté jigéen ñi li ma xam mooy xëw ma kañ la tàmbali de waaye am naa yaqin ci ni bi mu tàmbalee yàggut lu tax ndax jigéen ñi góor ñi mosuñoo dem bàyyi leen gannaaw tey fan jigéen ngay gis mu fere ko laa di jàngal alquran lu raar la waxuma la jàngal ko ay toog ubbi ci oto wala garab rek gis jigéen yore téere lu raar la day fan téere xam-xam ngay jox la dem ci ak jigéen mu jàngal la ko ñu gàcce la gàcce la ci umma boo xam ni góor ñaak jigéen ñi ñëpp ñoo bokk kóore ji ñoo war a nekk ay kóore ci jamono joo xam ni jamono yu yàggoon la niñ doon demee ci ay góor di jàng ci ñoom noonu lañ doon demee ci ay jigéen di jàng ci ñoom loolu ay firnde yu bari la am danaa ci sëñ leer mooy mbokk yi est-ce que yitt di jigéen ñi joxoon xam-xam def nañ ko xalam góor ñi tey maam jigéen ñi tey jox nañ ko ko dégg délégation jigéen ñi soxla nañ ci Abi Saïd al-Khudri ci xadis boo xam ne ba léegi ñu ngi ci Buxaari ak Muslim Abi Saïd mu ni jaat imraatun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ذهب يا رسول الله ذهب الرجال لحديثه فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا فاجتمعنا فأتاهن فعلمهن مما علمهن الله. jigéen ñi dañoo ñëw jigéen bu sasalam ni ko yonent bi day dañoo seetlu ne ñi nga yore ci xam-xam di ko wasaare góor ñi ko jagoo maanaam xalaat yi ngay am ak góor ñi moo ëpp jigéen ñi lii de benn jigéen moo ma ko ma ko wax ci li ma fàttali ci sunu dund benn jigéen moom ma ko wax dina ni loolu moo lay wan firnde bi lii lay wan ni maanaam jigéen ñi day njàng sax dañu yitteel kenn laa mas a dégg muy dafa mel ne ngeen a parle góor ñi ndax xalaat yi ngeen defal góor ñi moo ëpp li ngeen defal jigéen ndaw si mu ne yonent bi saa sallam saxaaba yi dañoo jël sa xadiis te ñun jigéen ñi ñu bëgg yi bëgg la daal ñu bëgg comme ni ko la fi waxee dañoo bëgg nga jàpp benn bis boo xam ne xalqatul nisaa la koy tuddee jëf allahu cheikh nasar al albani maa ngi yore benn kasatam xam nga nu mu tuddee kasat bi jalsatun xaasa lin nisaa li mu demee umra ji dajeeg ay jigéen mu ne jotaay bii de jigéen ñi kese amut góor jigéen ñi laaj ñuy tontu dafa jaadu borom xam-xam yi wutal jigéen ñi ay xalqaat yu ñu leen beral wala ñu mën a jàngale bopp di leen jàngal seen diine yéen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu rek mu daje leen kër diw su ngeen dajee kër diw bis tàngam damaa xamul ndax li may fàttaliku noonu laa ngir waaye su fekkee fàttaliku naa bis bi daf ko defoon bisu xalaat yéen yàlla bi dajeeg ñoom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen jàngal ci li ko yàlla jàngal undur ku toll nii yonent bi bàyyi ay yittee jóg daje jigéen ñi di leen jàngal seen diine kon loolu tegtal la bu lay war ni góor mën naa jàngal ay jigéen waaye nag bu ñu amoon jigéen juy jàngal jigéen la xayrun wa afdal wa awla bien kon jigéen yi salaf yi tàmbali sa saxaaba ya ñu xéroon la ci sàkku xam-xam lii firnde la ci moo tax maa ngi sa doon wax naan niama nisaau nisaul ansar waay waay waay jigéen ñi ñoo jàmbaar waay ñan mu ne waa lansaar mu ne lam yamnaahunna alxayaau an yatafaqahna fi diin ñoom kersa terewut ñu gëstu seen wàllu diine am na question yoo xam ne koy rusa laaj wala rus ngaa sa bëxloo dem ca xalqa ya di jàng xam-xam wala wala wala wala wala wala waaye jigéen waa lansaar ci gàttal seen tagg mooy lu leen xam-xam laa doon joxoon lan ko mbokk yi est ce que jigéen ñi di jaral na leen ko tey est ce que am nañ ay ay ay sayxaat ay suyuux lañ waaye amuñu ay sayxaat ay sayxaat mooy ay jigéen ndax xam ngeen ni aima yu mag yi allahu akbar aima yu mag yi alxaafid alsaxaawi alxaafid alzahabi ibn alqayim ibn taymiya alxaafid ibn xajar alxaafid ibn asakir ah liman liman liman liman liman koo ci lim rek nga jàng dundam la waxoon naa ne Ibn al-Hafiz Ibn Hajar ci Muqaddimatu Bulughul Maram nee na amoon na ñaari sayxa yu koy jàngal kenn kaa ngi tudd Fatima bint al-Munajjah as-Sanuqiyya xam nga lu doon wax ci moom dafa jël benn téere taalif ko kese jagleel ko ndaw soosu bokk na ci wax yu am solo yu mu doon wax ne qara'tu alayha kathiran min al-kutubi wa ni'ma shaykhatu kaanat allahu akbar allahu akbar mbokk yi xool leen lii yi mu nekk nii mbégte ci ab jigéen imam Ibn Hajar parce que xaaral xaaral da nga lam talid nisaa mislahu jigéen ñi juratul juratul doom ju mel ni Ibn Hajar Ibn Hajar mu ne jàng naa ci law si téere yu bare bare bare waaye waaye sëriñ bu mokk te mën a jàngalee boobu wax al imam Ibn Kathir boo delloo ci al bidaaya wa nihaaya te mu jàll ba mucc te mu jàll ba mucc wala boog lu ko jege nga xam ne mu jàll boobu te lay tarjamaal ñi nga xam ne ñoo ko jege alxaafis ibnu kathir amoon na benn sëriñ bu ñuy tuddee alxaafis al jizzi ibnu kathir li ëpp lu bari ci lu mu jàng def na sa xam ngeen borom xam-xam yi da ngay gis ne am na junniy sëriñ waaye nag am na koo xam ne li mu jël si moom jëlu ko ci kenn comme ibnu al xayim li mu jël si ibnu taymiya jëlu ko ci keneen alxaafis ibnu kathir mu ni maa ngi fàttaliku suñu soxna sëriñ ba jigéen ñi leen déglu bu baax ibnu kathir mu ni maa ngi fàttaliku ndax sax xam nga ñu ngi tarjama dañ ñoo xam fekkeewu leen waaye am na ñu ngi tarjama ñoo xam ne dund naa ci ñoom ndax al bidaa al bidaaya wa nihaaya bu ñu ko taalifee dañ ko tàmbale ca maam aadama ñëw ba jamono bi mu toll nag prolongé dem ba jeexul jamono mu ni jàng naa ma ni soxna sii nga xam ne mooy soxna alxaafis al misi mu ni li ma xam ci jigéen ñu wàcc alquran ba mokkal ko te soxna sii lañ ko jàngal lim bi taxu na yemul ci loolu mu ni ni mu doon toppatoo suñu sëriñ bi nit ci biñ ci amoon ni mu ragalee woon yàlla ni mu góorgóorloo woon mu ne moo tax gis li ñu baaxoo boo xoolee xaaral nit yi da ngay xam ne ñàkk na lu rëy allahu akbar fii la jigéen ñi tolloon ci xam-xam kon jigéen ñi nii lañ meloon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jamono yi topp ca ginnaawam kon kenn ngi ci ñoom muy Aïcha ummul muminin radiyallahu anha al faqiha bintu al faqiha الحبيبة حبيبة حبيب ربنا عائشة لو تجيك دينك من أبو بكر صفت صفت يا الله من يرجل صلى الله عليه وسلم يرجل يقول في أي حد الله بمي فاق عائشة بيجا من ياتا فكا حجر الميانس على الأقل فكا حجر الميانس ndax juróom-ñeent lañ ko joxee ko mu tegaat ci juróom-ñeent ñu fukk ak juróom-ñeent bay dugg fukk ak juróom-ñeenteel dix-neuf ans nga xam ni ñun xoolal suñu jigéen di tolloo ci war a dem sëy dix-neuf ans ci la borom këram paas mu téengi amaatul borom kër ba cinquante et quelque lu ko Aïcha yeneen bi faatu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ni daanaka booba ak lu tuuti la waaye feetal na jamono bi mu doon dund ak jamono yi ñëw ci ginnaawam ci xam-xam bal dañuy wax ni moom ak Abu Hurayra ak Amr ibn al-As xam ngeen booy jàng mustalah ilmul hadith soo demee ci téere ba al-Hafiz as-Suyuti taalif al-Fiqh as-Suyuti wala al-Fiqh al-Iraqi téere yi mustalah yi ah dañ lay wax ñi ëpp ñu solo hadith ah ñi nga xam ni ñoo ëpp lu ñu solo hadith ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ lay wax ni ku mel ne Aïcha ku mel ni Abu Hurayra ku mel ni Amr ibn al-As ñii ñoo ëpp lu ñu solo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ndekete l'islam sax fa ñuy limee góor ñi dañ koy limee jigéen ñi dëgg la waaye dafa takkar ko daal góor bu mel ni jigéen waaye dalaa ko doon ni mbir yi nga xam ne yàlla dañu ku ci def ma fay la man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min bi shart an yakuna mu'min jeex na góor ñeeg jigéen ñi ñoo ko bokk lu ñu koy xëccu kon Aïcha radiyallahu anha bokk na ci ñu ëpp li ñu doon solo man al imam az-Zuhri al imam az-Zuhri imam ju mag la ci ay mbay yi nga xam ni jàngal nañ imam Malik lañ bokk imam Zuhri mu ne kaanat Aïchatu afqaha annaas ah wa axsana annaasi rayan fi l amma ah imam Zuhri mu ne law jumia ilmu Aïcha ila jamii nisa ila ila ilmi jamii nisa mu ne la kaana ilmu Aïcha afdal imam Zuhri mu ne bu ñu jëloon xam-xamu Aïcha teg ci poids teg ci balance addina bi li fi jot a jàng ci ay jigéen ñëpp jël seen xam-xam teg ci beneen li Aïcha xam moo ëpp moo gën a baax allahu akbar al imam Ata Ata ibni Abi Ribaah imam Ata ibn Abi Rabah imam ju mag la ci aimatu salaf imam Ata mu ne kaanat Aïcha afqaha an-nas wa ahsana an-nas ra'yan fil amma mu ne Aïcha ci ñi gën a dégg diine ci l'islam lañ koy boole waaye ci gën ñi gën a rafet xalaat ci l'islam lañ koy boole Abu Musa al-Ash'ari mu ne ma ashkala alayna ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha hadithun qat fa sa'alna Aïcha illa wajadna indaha minhu ilman أبو موسى الأشعري انظر أبو موسى الأشعري الفقيه الكبير أبو موسى لجيجي كوري مات لو نسير كوري خمخمي ديالو سيدو دل صحابي أبو موسى الأشعري دي كوري كبير كوري مون كوري جوج موني ñun kóore saxaaba yeneen bi saa sallam suñ masaan am masala buñ def mu ne buñ demee ci aay dara suñ xol seen allahu akbar ndax am na tey jigéen joo xam ne boo amee gëj gëj ci islam nga xam ni wax dëgg yàlla bu ñu amul woon sax ay faqiya ci mboolem jàngale islam nañ am faqiya ci islam nga xam ne xaw naa gerteem jigéen ñi di sa àgg nga am na nag ala yoo wax dëgg yàlla jigéen ji sax xëy na rus na koo laaj góor doonte l'islam amul lu ci rus waaye benn benn benn faqiya ci baabul xayra taxawuñ ko ah benn faqiya ci baabul xayra bala ngaa gàcce àndam rek dañu am néew bu jigéen ñu ne dañoo bëgg jigéen bi ko xam am rabbina al aala da ngay gis lépp dal ci gannaaw parce que jigéen bi sang néew jigéen bi mën a sang néew sax amul lii gàcce la maa ngi fàttali ci jamono boo xam ni benn mbokk daf maa woo bi may nekk géej waaye mu ne ma dafa ko faas fiki waaye problème mu jigéen bi ko sang lan subhanallah ci ay jigéen yoo xam ñu góorgóorlu ci sunna ah ak jigéen ñu mu rëy ñu ni problème mu jigéen bi ko sang lan lii gàcce la masalan sang néew mënoo masalan xay bi mënoon l'islam taxul di wax ñii dañoo dépassé woon foofu dañ doon fatwa ay góor xoore gi nee na suñu masaan ak dañuy dellu si ne Aïcha radiyallahu anha imam Masruq imam ju mag la moom mu ne raaytu mashiqatan mashiqata ashab Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasalunaha an alfaraid mu ne faay xaar yi maa teg sama ba bakkaay ñu sukk ci ronu ay ci kanamu Aïcha di ko laaj mu di leen jàngal miraar allahu akbar ah nga xam ni man xam-xam bi man buñ ko tuddee sax sama firi day dinañ tëj ndax ñun ñi jàng xam nañ ni masala yi bokk na miraas yi gën a compliqué la bokk nga xam ne buñ ko tuddee rek boo mën a nga rek a jàngale sax waaye dañ ko tuddee sax dangay tiit ay góor dañ doon sukk ci kanamu Aïcha mu di leen ko jàngal masala dañ ko wax ni ko kaar Aïcha waxtunul baraay muy ndax Aïcha mënoon la miraas mu ni wallahi laqad raaytu al ahqaa min ashaabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasalunaha an al faraid mu ne gis naa ay góore ci saxaaba yonente bi saa sallam ñuy laaj Aïcha mu leen jàngal miraas alxaafid Abu Hafs muy Amr ibn Abdul Majid al Qurashi al Mayansiji imam ju mag la am na benn téere bu mu taarif mi ngi ko tuddee kii boo xam ne lay taalu xadis jaxlu téere bi ni mu tudd ci wolof mooy day leeral ngir yoo xam ne képp kuy jàngale xam-xamu xadis moom xaw ma loo war a réer waaye yii bokk ba tax téere bu am solo مني اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث ومئتي حديث من الأحكام بخاري ومسلم حديث yi ñëw di wax ci wàllu àtte wax ma la ci nekk lépp yi ñëw di wax ci wàllu àtte mu ni junni xadis la ak ñaar téeméer mu ni fa rawat Aïcha min jumlati alkitabayni mi'atayni wa mi'atan wa tis'ina xadisa mu ni ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak lu topp ci ay àtte ay kese kese kese moom solo na allahu akbar kon loolu moo lay wax ni Aïcha solo na lu bari jëlee ci sax surtout ayatul ahkam ci ahaditul ahkam moo tax xaakim imam abu xaakim saaxibul mustadrak day wax ni fa xumila anha rubu sharia kon daal lii moo tax ku ni Aïcha ak sharia ah ak sharia boo ko xaajee ñeenti xaaj ñeenti jël ba Aïcha moom yenn na ko loolu am na téere bu am solo bu ñuy wax al ijaaba imam Zarkashi moo ko taalif da nga ci fekk wax jooju kon mbokk yi kenn ci saxaaba yéen sa sallam wala jigéen ñoo ñee dañoo nekkoon ñu ragal yàlla yoo xam ni ci wàllu xam-xam ci jàng alquran dañ ci daan góorgóorlu waaye rawatina ci ñuy waxtaane mooy Aïcha radiallahu anha borom téere mu ngi wa kam kaana laha radiallahu anha min istidrakatin ala alsahaba wa mulaaxadatin fa ida alimu bi dalika minha rajahu ila qawliha mu ni ñaata yoon la ab saxaaba yi wax ay wax ay dañu oh oh du noonu de nii la mun su boobaa dañuy bàyyi waxu saxaaba bu ñëw ci waxu Aïcha parce que day fekk kooku Aïcha fa am dëgg ku dem bay corrigé konkali saxaaba yi ci di ab jigéen kii bu amoon xalaat buñ la mën a jox boo xam ne dañuy wax moo ëpp fóore ci xam-xam dañ koy wax man jigéen ñi dañ daan ñëw di ziar ci Aïcha mu dina jàngal ah al imraatul maxzumiya moom ngeen dégg ci xadis ba ka nga xam ni daa sàccoon ñu nar a dagg dagg loxo gars yi ñëw ci Usaama naan ko tey ngaa ñaan yéen sa salam ndax kii kat ku tedd la ci famille yax bu dëgër bu dijj comme ni ko gars yi waxee yéen bi daal di ñaax ñi ko lislaam moom xàmmeewu yax bu dijj bu dëgër bu gën a xam nga lislaam lu mu xam képp ku def loo war a def ma dagg sa loxo ñu dagg loxo ndaw soosu gis nga ndaw soosu dina doon loxo ndax dafa sàccoon da daan ñëw ci kër Aïcha ginnaaw bi di jàng ci Aïcha Aïcha di ko jàngal yéen ci yàlla safar ay soxnaam ñoom ñëpp ay góor lañu doxal nañ lu bari ci lislaam waaye nag Aïcha la ci rawati radiallahu anha man ñoom dañ doon mokkal lu bare bare nag dal dañ doon jàngal ay góor dal dañ doon jàngal ay góor su ko defee ñu jël taasir fekk te liggéey way daal daal mun a ma tàmm fasal mi waaye xijaab nekkul ci comme góor ñi ngay jàngale ni yow rek toog góor ñi def xalqa déedéet Aïcha day dem def benn sitaar nekk fee ci ginnaaw jigéen ñi toog fii duñ ko góor ñi toog fii di ko jàng du duñ ñu mën leen jàngal bu dee jigéen ñi nag mën naa toog ak ñoom si leen ne xaaral jàkkaarloo ñoom ndax am ngeen soxna yéen da doon muur seen i kanam waaye ñu muur kanam boobu teg ko dañ daan jël baaraam def ko seen diggante góor ñi yaakaar naa bu ngeen jàngee dundu aimatu salaf dañ lay wax ñu bari ku ci mel ni imaamu Maalik imaamu daari la hijra amoon na doom bu jigéen allahu akbar doom bu jigéen boo xam da koo jàngal ba mu ñu xar xam ngeen ni ngeen tuddee xar ci xam-xam bu bàyyi ji daan jàngale ndongo yi bari allahu akbar bàyyi ji la koy wax la déglu mi ngi ci ginnaaw buntu bi déglu ah léegi day jékki-jékki rek ne comme comme buntu bi ngir maa leen xam ne kii kat gab na allahu akbar da ngay gis imaam yoo xam ni dafay taali ab téere doomam bu jigéen sax loolu boo demee ci ay mut sax nga looy fekk da ngay gis imaam di taali téere doomam bu jigéen sax nga gis koo xam ne day jàngal doomam bu jigéen bu mu nekk fóore gis ngeen imaam Zuhri imam Saïd ibn Musayyib ci xistaam boobu doom jigéen dem doon may waajal doon nga baax ah nga xam ne ndongo bi dafa toog ay fan jàngatul Saïd ibn Musayyib fekk doom ji buur yi dañ doon ñëw di ko di ko ñaan ci mu bañ ba am na benn buur bi mu ko ñaanalee doomu bañ da ko caa dóor dóor nit ndax wane ne mooy amir waaye mu dëggal ci lim dëggal sama doom du ma ko may borom alal ndax su ma ko ko mayee xam naa fu ndiggam lay fanal waaye xaw ma ko fas xam di fanal ki ma koy may mooy koo xamante ni fas fasam day fanaan ci la la kiimaan muy jàngale ba mu yàgg gisul waa ji ah waa ji toog ay fan daal bi saa yi toog ba benn ngoon rek mu ñëw test ko mu ne ko lu tax ma gëj laa gis ci xalqa bi gis nga borom xam-xam ni ñu oyofee woon buñ gëj gis seen doom dañuy jugut seen tànk bi mu ñëwee mu ne ko lu tax ma gëj laa gis mu ne ko man kat sama soxna si ma yoroon dafa faat saa yi ne ko est-ce que sa xel nekkaat na ci wutaat beneen soxna mu ne ko ah loolu kay xam nga ni jël xalaat waaye nag nu may def ku may jël man war a kaane kii waaye léegi waaye lan moo war a xam lu ko ko mu ne ko fu may jëlee mu ne ko xanaa man sëriñ may la allahu akbar ndax ñi ñee li ñu doon xool ak ñun li ñuy xool tey waaye wala kaane ba amut lu mu dëkkee soxna nga xool ko xam ko mu ne ko maa lay may waa ji mel ni affaire yi daal tey lii boon li boon li fi amoon daal affaire bi jeex saa yi dem nekk góor gu mat góor ci biir këram la déglu leen bu baax yéen góor ñi saa yi dem nekk góor gu mat góor ci biir këram ay wol ma bàjjee na mag wol ma tàntam dëgg la rafet na waaye du sàpp de wol ma yaay li ñuy xalaatam wol ma bàjjee na mag tàntam dañ ko yëgal ci jaay bi demal bàjjal ba ñëppale mbaa ci jaay ji ñëppale dëgg la lu rafet la ak yëg la waaye du ci sàpp de saa yi góor gu mat góor la ku am baat la ci biir këram dafa ñëw daal di xut ba may doom bu jigéen bi ndongo ba jàpp ci loxo bi ba jëlee jiw ba noppi ji ko ko yóbbul moo ko yóbbu sax mu tëyi nag jërul kara moo jërul kara waa ji daal woor ba ngoon jot ndeysaan amut lu mu ndogo wallahi rabbil alamin amut songal bu mu saam nee na dama jege-jege moom yàgg ma dégg ku ne kon kon ma ni kookat la mu ni man la saa yi mu ni bi mu ne man la saa yi sama xel mi wër na àddina bi yëpp kan moo ko war a tudd saa yi fàttali ne sëriñ bi saa yi la ko xam nga la war loolu Saïd ibn Sayyid dafa nekkoon borom xam-xam bu mag mi ngi mel ni kenn ku toog ci ñun ba mu yàgg rek ñu ne la sëriñ diw ci ñu màgg ñu seet na la xam nga day day rëy ci yow mu ne bi ma waxee fàtt naa ne kii may jàngal Saïd ibn Sayyid la tudd sama xel wër àddina bi kan moo fi war a tudd Saïd allahu akbar mu ne ma tijji xool luy Saïd ibn Sayyid ndax Saïd lu mat ñeent fukki at ku ko mas a gis jàkka ja mbaa teet feebar baat amul jot gu muy taxawal dem fenn nee na mu ne ko maa la waxoon dinaa la may sama doom bu jigéen mu ne ko waaw mu ne ko mi ngi nii daal di koy muur ba wax ci biir yaay waa ji ñëw mu ne ko araam na juréel gi ma la juréel su fekkee mayoo ma li ma la bëgg a ñaan mu ne ko la la mu ne ko ma jox ma ndaw si ma yóbbu ko defar comme ni ñuy defaree fii ndax loolu yonent bi moo ko jàngale mu defar ko daal di koy indiwaat allahu akbar waa ji daal ko yor a jàngi mu ne ko looy jàngi mu ne ko téere tàngam mu ne ko ubbil ma tëralal la bind mu ne soxna su mel nii ku ko amoon sama sëriñ bu ñu ne la fii sa sëriñ da nga naan sama soxna soxna su mel nii ku ko amoon bu ñu ne la fii sa sëriñ da nga naan sama soxna mooy benn sëriñ ndax sëriñ mooy kala jàngal ku la jàngal du sëriñ leneen la waaw gis nga jigéen joo xam ne dafa jàng ba ne xaral ci bàyyi ah kon jigéen ñi nii lañ meloon kon Aïcha radiallahu anha ci da doon toog di jàngal ay góor bari na ci saxaaba yi ñoo xam ne Aïcha jàngal na leen radiallahu anha benn bi kenn ci doom doom ay doomam doom la ci moom su fekkee fàttewu ma ndax xam ngeen turu saxaaba yi daa bëri Urwa la tuddoon Urwa Urwa waaw Urwa la Urwa ibn Zubayr ndax Urwa doomi Zubayr te Zubayr Asmaa yi soxnaam te Asmaa ak Aïcha ñoo bokk benn baay kon Urwa doom la ci Aïcha mi ngi noonu kooku la ñëw na kon Urwa dafa am question bu kerkaw mu ñëw bëgg koo laaj Aïcha muy nakk nakal mu ne ko lan la mu ne ko dama laa bëgg a laaj te rus mu ne ko bul ma rus sa yaay laa laaj ma li nga bëgg a laaj Allah kon gis nga kon Aïcha nii la meloon radiallahu anha ci xam-xam ak joxe ko di ko jàngal ba mbokk yi damay wax ni jigéen ñi ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba suñu joonu yàlla ju yàggu diin jigéen ñi ay kóore lañ woon ci xam-xam dañ doon jàngale waxuma dañ doon jàngale dañ doon jàngale kaay ma jox la ci benn firnde al imam Muhammad ibn Saad ñu jàng taarix xam nañ téere bi may wax muy atabaqaat am na benn téere bu tudd atabaqaat ibn Saad boo defee loo ay taraajum yu bari ci xamal la dund saxaaba yeeg taabiu ni ñoo ci nekk ah am na benn partie boo xam ni ci ab tabaqaat daf ca indi Aïcha lan la soloo ci ay xadis ah lu mat juróom-ñaar téeméeri xadis ak lu topp juróom-ñaar téeméeri xadis ak lu topp indi na ko ci mu ne Aïcha moo ko soloo ah ci biir saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al imam zahabi al imam zahabi dafay wax lu am solo dafay wax lu am solo ci siyaru alaami nubala imam zahabi da du siyar miisaanu i'tidaal imam zahabi moo taalif siyaru alaami nubala di du saxaaba yi moo taalif miisaanu i'tidaal muy peesekaay bi ñuy peese ba xam ñi wóor ñu yëndal xaritam bi gis nga boo demee ci miisaanu i'tidaal imaamu zahabi daf te wax wax yoo xam ne dama ni bépp jigéen yoo xam ne yaa ngi woon ci yoon wi sa xol day sedd ca lool xam ngeen lu ko dani sama téere bii génne naa ci nangami junni junni junni junni junni junni saxaaba ay téeméeri téeméeri téeméer ba mat junni ñu bàyyi du ay saxaaba waaye ay saxaaba ci taabi'uun ak ñeneen ñoo xam ne ñii dana kenn du jël seen xadiis nee na ay junni génn naa ko ci téere bi waaye yàlla def na benn jigéen bu daay amu ci allahu akbar nuqaat yi nuqaat yi mooy ñi nga xam ne critique rek lañ mën boo waxee loolu ñu ne ah loolu c'est simple parce que lu tax parce que jigéen ñi liñ doon soloo ci xadis bëriwul ma ne la da ngaa xamul dara ndax boo xamoon dara boo jàngoon di nga xam ne ne jigéen ñi doon soloo ci jamono jooju ak na góor ñi doon soloo ci la même chose ñoo tolloo kon ku wax loolu da ngaa xamul kon danaa bëgg a wax ni jigéen ñi seen ak farlu daa yeggoon ba ci bu ko ay imam zabi mu ne xaw ma ko woon te ñoom boobu mu ne ñi ma gis sama téere benn jigéen bu ko ay sax andi ma ko ci te ay junni junni góor yu baax mu ngi ci allahu akbar ndax jigéen ñi yegg nañ ko yegg nañ ko sax laay wax yegg moom waxatuma ko maanaam kon lii lu ñu war a dugal ci nag ñu gëm ne dañoo war a nekk ay cheikh ay tóore allahu akbar da ngay fekk benn jigéen ban jigéen ngay fekk rek Sénégal ban jigéen ngay daanaka boo nee benn da ngay wundeel ba yegg si nga tàmmi loolu wax ñaar fegat di nga ko wax jigéen waxuma la xam-xam de garan ku laay di jàngal alquran tey ñi jàng tey ku nekk mën ngaa lim diw jàngal na ma diw jàngal na ma diw jàngal na ma waaye jigéen bi sa bopp loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw da lay wax ne umma bi tey yegg nañ gannaaw ci xam-xam man ñu njëkk ne dañu doon daari di wax diw jàngal na ma diw jàngal na ma alxaafis ibn asakir soixante dix jigéen jàngal na ma alxaafis ibn asakir taarix la benn téere bu rëy bu ñu tuddee taarix ibn asakir ah taarix ibn asakir téere bu rëy la boo xam ne daanaka quatre vingt volume ëpp la ko soo demee juróom-ñaar fukki jigéen jàngal na kon loolu moo lay wane jigéen ñi ay sayxaat bari woon nañ ci lool kon mi ngi noonu waaye bokk na ci liy gën a dalal xel xool imam ali ibn abi talib jàngal lu def al faqih al alim al rabbani ah saaxibu al fiqh al daqiq ali ibn abi talib doon na jàng ci jaam bu jigéen maymuna binti saad maymun binti saad jaam bu jigéen la boo xam ne ali ibn abi talib moo ko moomoon xoolal allahu akbar moo tax gis nga xam-xam xam-xam daal du yëfi nit yëfi yàlla xam-xam du yëfi nit yëfi yàlla wala ay suñ tool gën kii fuuf jig sangam muy góor kee di jigéen waaye ndaw si farlu na ba jël lu ali jël lu ali ñëw di jàng ci moom ndekete xam-xam daal beneen affaire la ay maa ko mag ak moo mag ak mooma li yeeg maa ko li gis nga loolu ci ñun la commencé am soo jàngee ay mbir mustalax dafa am lu ñu tuddee riwayatul asagir an al akabir am lu ñu tuddee riwayatul akabir an al asagir mag ñaa ngay soloo ca gone xam nga loolu ci ndaw ko dégg gone yaa ngay soloo ca mag nga lañ daan dégg am na yoo xam dafa dëkku nag riwayatul akabir an al asagir mag ñaa ngay soloo ca gone ya moo tax yéen yàlla bi nee na bokk na ci mandargay jeexi jamono an yultamas al ilmu an al asagir saa bu nee ba xam-xam bi ci booy yi lañ koy fekk xamal ni addinaa ngi waaj a jeex laa hawla wala quwwata illa billah xoolal tey xool xirri jaamia yi ah fii rek waxuma la àddina bi xoolal fii rek xirri jaamia yi xoolal naa nga mais koo xam ne daanaka ci doogu sax waaye yàlla ko dara dénk ko ci xam-xam loo xam ne loolu daa ñëw kuy firndeel waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme gis nga kon Aïsa radiyallahu anha nii la meloon waaye jigéen ñi tamit noonu lañ meloon ummu darda al faqihatu rabbaniya ummu darda ummu darda nag yéen ñi jàng fan dafa am ñaari ummu darda dafa am ummu darda ak sobra ak ummu darda al kubra ummu darda al kubra mooy soxna abu darda ummu darda ak kubra keneen la kon ñaar lañ léegi nit ñi far leen a jaaw ummu darda dana wax ni laqad talabtu al ibadata fi kulli shay'in fama asabtu li nafsi shay'an asfa min mujalasati al ulama'i wa mudakarati boo xam ne nee na dafa bëgg dafay nax su ngëm yàlla fan lay yokkoo mu ni essayé naa essayé jaamu yàlla lu ne nee naa ko doos ñu cupet pour yëg sama ngëm yàlla yokk waaye mu ni fi may yëgee sama ngëm yàlla bi gën a yokk mooy sama toogee borom xam-xam yi ñuy wax may dugg mu ni la sa talabul ibadata fi kulli shay jaamu yàlla moom dàkk naa ko côté bu ne waaye fa ma yëgee ni sama xol sedd na fees teel mooy sama róobala borom xam-xam yi di jël si ñoom kii boo jàngee dina da leer ne par guddi jigéen ñi dañ daan ñëw ci biir néegam mu di leen waar di leen fàttali di leen nangam dellu ci buxaari dellu ci buxaari te bu mag ba ah ba muy jàngale jur moo tax waxoon yàgg naa ne rek da def nii rek imam buxaari lu téere bi mu taalif xadis la waaye xadis la fiq la li lay wax ni fiq la mooy yi ñuy tarjama bunt yi la bunt bi daf koo tuddee buntam nan la jullikat gi toogee ci suuf mu indi melokaan wa yonent bi toogee ba noppi te commencement dañu wa kaanat umu dardaa'i faqihatan wa kaanat tajlisu jilsata rajul gis nga umu darda ku fóore la woon ci xam-xam waaye bu daan julli li góor di toogee lay toogee xam nga li ci Buxaari nam mooy dala bëgg a xam ni comme nekkate toog différence amul ci góor ak jigéen loolu dafa demee ci Sunan Abi Daawud am xarit ma nga ba boo xam ne yonent yàlla dafa romb ay jigéen ñuy julli ubbeeku nii comme ni góor ñi ubbeekoo yonent bi ni lem leen seen loxo yi ndax lii góor ñi kese la waaye ba mu ci sunan abi dar waaye dafa baax wéru kon góor ak jigéen ñi ñoo bokk yam waaye sew sew yëpp jigéen ñi dañ ko doon génne ci seen jàngale kon Aïcha radiallahu anha kon mi ngi noonu ci xam-xam waaye mi ngi noonu ci fóore waaye mi ngi noonu tamit ci mën a jàngale kon buntu bu bala ma koy sët damay wax ni jaadu na tey ñu delloo wax umma bi te cosaan lu njëkk la li ma jotoon ab tënk la rek ci jigéen ñi yàgg na waaye boo delloo ci soxatu soppoon bu imam imam ibn jawzi wala nga dellu ci seero alamin wala bi imam zahabi wala nga dellu ci kàggu siyaar yi rek wallahi da ngay gis jigéen ñañ la daan tarjamaal ay jigéen ñu baax ay jigéen ñu ragal yàlla ay jigéen ñoo xam ne ci jàng ak jàngale góorgóorlu ak ragal yàlla yeggoon nañ ci dara yoo xamante ni jéggi na dayo ah xaqatu binti sirin ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay aimma yu mag ci góor ñi ak ci côté jigéen ñi ñoo xam ne ay óore lañ woon waaye ay jàngalekat lañ woon du saxaaba yee kese lii kon ak soññaat luy la waroon ab dàggi waat la xam nga dàggi léeg-léeg bu dee bay ba mu yàgg ñu ne dàggi leen ko wala daaf bu dee paaka ah wala soññaat ko ci jullit bi jigéen ñu góorgóorlu waat te dañu war am ay ay say xaar ñu jàngale Qur'an ay say xaar ñu jàngale Qur'an ay say xaar ñu jàngale fiqh ay say xaar ñu jàngale hadith ay say xaar ñu jàngale aqida wallahi dafa war a am te li tey mu am dara dara teewul mu am lu dul tàggat est ce que góor ñi li ñuy sonnee ci tàggu xam-xam dëgg la jotaay jot góor ñi am di génn di dem ak a ñëw di nangam ak a nangam amut waaye alhamdulilah boo fekk jàkkante da ngay fekk ñu farlu wax dëgg yàlla na ñuy góorgóorlu ñu ngi ci yoon bi ñoo ne dañoo war a góorgóorlu ñu nekk seen gannaaw roy leen dañoo war a góorgóorlu ci xam-xam ay faaba ñu bokkal alquran di ko tari am na benn mbokk mooy la ci ne xaw ma benn xaritam xam naa ki ko nekk defe naa mi ngi ci jotaay bi sax koo xam ne ñoom seen jigéen la mu ñëw fii di jàng xam nga lu muy jàng xam-xamu tubaab dafa ay informatique defe naa noonu la koo xam ne seen réew ñoom jigéen ñi dañuy mokkal Quran ba noppi subhanallah doogu jàng leneen allahu akbar xoolal loolu tey am na fu mu def ba léegi ay jigéen ñoo xam balaa ñoo tëj mokkal Quran waaye mokkal Quran am na borom xam-xam yoo xam boo demoon tey ñu tafsiral la tàmbali ci téere yu ndaw yi ci téere yi nga xam moom la doon jàng ci téere yi sax jàng ko bu ko xeeb ñu bari ci ñun nag da ngay góorgóorlu nga jàpp ni durusul awal axdari muqaddima asmaawi risaala ibn ashir xalil yooyu jërul jàng ahan kay ak a jar jàng ñun ñu ngi fàttaliku bi ñuy jàng ci daara ji noonu lañ ko toppalante bu dëgg la ay njuumte yu yoo fëkk fëkk la boo xam mu jaral léegi am na ci wax dafa juwee xayi waaye gis nga pour nga xam dëgg dëgg sew sew yi nekk ci ngir yi pour am masala nga jekk ko dëgg dëgg jekk ku xoola loolu waaye dégg olof boo jàngalee li ngay jàngale sax mën nga ko jëlee foofu moo tax kenn ci suñu sëriñ daana soññ ci lu mel noonu nañ jàng téere yooyu fii la ar risaala xam ni risaala ibn abi zayd moo ko daan ci al mazhabul maliki waaye boo xoolee daanaka yu mbir yu bëri mbir yu te daanaka xawul tuuti doon mën genn wàll njuumte yi ñëw na ca lool am na ca boog doom rek ndax téere bu amul njuumte amul lu dul téere yàlla bi subhanahu wa taala kon lii noonu kon Aïcha lii ab jàngale la muy soññaat jigéen ci Qur'an soññaat leen ci xam-xam soññaat leen ci góorgóorlu ci jàngale diw jàngal na ma diw jàngal na ma bay diw jàngal na ma fekk ab jigéen la tudd wallahi loolu ndam la loolu lu rëy la ci moom lu rëy la ci al umma al islamia wa ma al asafi shadid tey daanaka jusu amma rek jusu amma jigéen bi la ko mën a jàngal bi ak ahkam tajwid yi nasal allah salaamata wal aafia wa kadalika benn téere bi benn téere boo naan ci diw sàngam mu di jigéen laa ko jàng kenn ku naan jàng naa ci diw bu jigéen lu tax parce que koo jàng ku ku man dara dafa ngay jàng tam nga gis kon lii Aïcha dafa nekk ab symbole ci biir sunna ak ñëw ci gannaawam ñëpp di wane xam-xam di wane góorgóor di wane njàmbaarte waxoon naa leen doomu imam Malik waxoon naa leen ñeneen ñeneen ñeneen ñoo xam ne ay kóor lañu woon ci xam-xam kon Aïcha radiyallahu anha noonu la meloon beneen bi ci des mooy borom téere mu ni maa zannukum bi adabi nubuwa lan ngeen gis ci koo xam ni yar ba mu yore ma ngi ko jëlee ci kër ga yàlla wàcce yonent yonent na mu ni Aïcha radiyallahu anha njomboxtal na lu ñoqali ja kaw ci asamaanu xam-xam ak solo xadis ak dëddu àddina ak ragal yàlla ak mbaax ak góorgóorlu allahu akbar xam ngeen ni pour wan lañu ne ku nangu woon dëgg la xam ngeen ni yu bari ci lu Aïcha dama ko tëb ndax ay fitan la te fitna yooyu dafa jeexalu xol waxoon nañ ci suñu Alxuraan la ca mënta ñàkk ñu xam ko rek ñu xam ko gis ngeen daje ba mu daje woon ak moom àndoon tal ak Zubayr ñu daje Ali ibn Abi Talib mu génn ba ay mbir am sa ba mu ñibbi ci allahu akbar da koo jooy ba faa yéen daal dafa toog saxaaba mu yàgg mu ne kan ci yéen mooy koo xam ne xaj yi nekk balaa xaw ak moom lañ nar a ndóob moom lañ nar a mbëgg ci jamono yi fitna Aïcha keroog bi mu génnee jóge Màkka dégg ñu ne rey na rey nañu Osmaan mu dem def direct Basra wala Kuufa ah biñ demee ba ci yoon bi ñu romb place bu ñuy wax alxaw am ñu dégg xaj yi naan baw baw baw baw mu taxaw daal laaj gars yi fii fan la ñu ne ko fii mooy alxaw am mu ne mukk du ma yegg damay tourné kon man nii la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam mun dama doon wax kenn ci samay soxna mooy koo xam ni xilaaful xaw am dama koy mbaw bi mu naree tourné ñoom àndal muy talxa ak Zubayr di ay gars yu baax di ay gars yu ragal yàlla xam ngeen Zubayr xam ngeen kan muy Zubayr ah mooy xawaayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yéen mu ne ko yow moom yaay sama ancien gardien benn bis Zubayr dafa génn rek bët ci jaase di pëyi pëyi ci Madina mel ni sa waay ku tàqali ko sa bopp ah xam nga lu mu doon daw dafa dégg ñu ne rey nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam léegi xabaar bi du dëgg yéen a ñoo def information yi mooy liñ xew tey rek ñu jékki-jékki sànni benn affaire rek pour jullit ñi ne tey karaj karaj wax waaye fàtte lañ nekkoon da ngay yegg ñu ngi nii Amérique am na benn jigéen bu ko doon jiite juma léegi nag suñu masala yëpp dañ koy téye suñu jaamu yàlla suñu nekkee kurti kurti fekk noonu it daal ñooy def yeeg yooyu yonente bi dafay moom ni ko waaw ci lu muy daw kaa jaam mu ne ko it man kay dañ ma wax loolu da nga faat mu ne ko waaw après su ma faat woon nag mu ne ko sama jaasi ji damaa génnoon pour pour ni ma moo faat ñeneen si ma faat ko mu topp ca mbaa ma faat allahu akbar kon gis nga kooku la àndaloon ak kan Talha mooy ki nga xam ne am loxoom da ko gëttoon ndax dañ doon dóor yonent bi jaasi mu baare koog loxoom loxo ba gëtt kon ñii ñu baax la waaye gis nga teewul aay sa ànd ak ñoom ci fitna jooju allahu akbar allah kon xam ngeen ni ji ci fitna yi xewoon ci ginnaaw yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam dëgg la fitna yooyu li may faral di wax mbokk yi waxoon na leen ko ci dundu Osman waxoon leen ko ci dundu Ali ibn Abi Talib ak jeexital dundu Omar fitna yi moom la ma waxoon ci sànq ci téere boobu di risala rek boo demee ci risala téere bu am solo ci muqaddima ba aqida ahlu sunna wal jamaa la ca def te mu jëndal ko ba muy wax saxaaba yeeg noo war a yaroo ak seen diggante muy la xewoon ci seen diggante maalu sax ñaar ñoo xam ne kenn ku ci nekk nee na yàlla di yàlla nee na di nga dem àjjana man de di leen àtte ma far dugg sawara du ma ca fekk dégg ngeen wax loolu la jullit bu ne war a fas ñaar ñoo xam ne ku ne yàlla nee na di nga dem àjjana ñu jàppante man du ma fa nekk di leen àtte ma tàbbi ca safara waaye xool la Aïcha kere bi mu ñëwee ci mawqaatul jamal ba mu dajee kooku di bii métti lool ay musiba yu garaaw am ba li tuuru ci deret ci ay saxaaba ay junni junni junni la ay junni junni junni xam ngeen lan moo waral loolu fekk na Aïcha ah ak ak ak ak ak ak kuréel ba mu àndal Ali ak kuréel ba mu àndal seytaane dox na seen diggante ba ñu jëkkaloo ba jileen gi Aïcha waroon cor nañ ko ba jileen gi daanu Ali ko jox jileen gum war keroog teral ko ormal ko ndax fitnaa xew waaye soxna yonent bi nga ba léegi gis nga aasi ñu gis yaa ngi gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir saxaaba yi fekk fa Abdullah ibn Umar allahu akbar bi ñu nekkee am Abdullah ibn Umar bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo tere woon fitna am na ci saxaaba yi ñoo xam ni ñoom nanguwul woon bokk ci fitna bi dañoo tere woon Abdullah ibn Umar tere woon xam ngeen ni am na ci sañ-sañ noonu rek Abdullah ibn Umar daal di def ci Aïcha Aïcha daal di rëcc jooy jooy yëpp xoolal ñun nangoo ndax gis nañ juum na génn na dem na te war a war a génn juum na dëgg la borom xam-xam dañuy wax ni Ali moo ci am dëgg daje ba Ali daje woon ak Muawiya ak Amr ibn al-As ñoom Ali moo ci am dëgg ci yooyu yëpp ay détails la yoo xamante ni maanaam dama la koy junj rek ci nga xam ci loolu waaye bi ñu yegsee ci dëkk bi mu ne ko lan moo tax tere woon wallahi giñ naa ci yàlla soo ko tere woon du ma dem mu ne ko gis naa Talha fiq la ak Zubayr kenn ku ci nekk di wax te ñoom ay saxaaba yu baax lañ ma bàyyi daal ñoom nga dem Aïcha ba doon ñuy faatu saa buñ ko tuddee lu jëm ci keroog génnam nga rek ndeysaan ay jooy daal di koy gaaw kon loolu da ngay wax ne ku doon deltu gannaaw la waaye ku ragalal yàlla la kon Aïcha nag ku ku ku jotal aw la ku mën a leer ku amal fasaax la alxaalis zahabi mu ni wala xabun waafir min al fasaax wal balaaga am na cër boo xam ne bu ma sëkk la ci jot ak mën a leer ak xam li nga xamante ni moom lay leer mu ni wa ma laha min al manaqib radiyallahu anha ànd ak lii yëpp ak li mu am ci ay daraja yu kawe ànd ak loolu lépp Aïcha radiyallahu anha xam ngeen ni ci kër Abu Bakr Siddiq la génnee dugg kër ak yeneen ci Fatima te kër boo ci dugg ñoom ñaar rek la ngay soxla ba nga koy fekk kon Aïcha kenn la woon ci koo xam ne dañ daan joxe ci moom message ci mën a leeral xam nga loolu yàlla dafa am ñu ko may ah Aïcha Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Abbas ñëw ba ci Xasan ibn Ali ci Karbala te foo ci dem rek dafay am ci fasaax ak balaaga loo xam ne ci imaanu yàlla moo koy dana wax inna min al bayaani la tixaan nekk te mën a leeral dafa mel ni yàlla da ciy sax ko njabaar dafa am ñoo xam ne yàlla moo leen may mën a leeral loolu nag fadlullah yutihi man yasha Abdullah ibn Abbas ak yéen kere ba xawaari di génnee ah di bëgg a xeex Ali ibn Abi Talib benn ba cëf mu sol man ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kaalaw jib li mu waxtaanee ñoom ba pare keroog nangami junni génn nañ ci xawaari ndax ba sax du ko yàlla mën Useyr ibn Ali ca Karbala gars yi dañ doon saraxolle bu ko kenn dégg ndax bu ngeen koy déglu mu ñuy soobee Ali ibn Abi Talib nag moom dañuy jox misaal ci moom Aïcha tamit noonu la meloon moo tax imam Abu Amr ibn Abdul Bar imam ibn Abdul Bar mu ne kaanat waxidata asriha fi talaatati ulum maanaam amut kuñ ko doon dëkkaleel ci jamono ci ñetti xam-xam bi ci njëkk mooy ilmu fiqh bi wa ilmu fiqh bi wa ilmu shaar fiqh leeral diine wàllu faj ak ni mu ko xamee woon dana dana gën a ñëw ci biir bii di ñëw ak way way nag su ma ko waxee su bokk te yi ngeen xam eh jublu ma ci yooyu de arab yi arab yi ci boppam dafa am lu leen yàlla mayoon muy ay misaal yàlla subhanahu wa taala bi mu yabalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu yabalee Moussa Moussa jëm jamono la tombelam jamonoy njabar moo tax yàlla jox ko ci ay kéemaan loo xamante ni faafax tex la moo féete kaw jabar loo nga doon jombalee jabar yéen yàlla ay saa bi mu liggéey lan la tombeel faj da fekk nit ñi commencé évoluer di dem ca kanam yàlla jox ko loo xam ne jommal na métier day fekk mu ngaa mu ne ko nii mu wér mu fekk ko dee mu ne ko nii mu jóg bi isnillah loolu moom defe naa nekk mën ko Mouhamad bi ñëwee lu mu fekk zamanul fasahati wal balaaga mën a wax moo tax wax bi jawaami al kalim kon arab yi dafa am loo xam ne yàlla dañ koo mayoon mooy natt ay bayit am na ay màggal yu dégg ñu naan soo ko rocage yu demee noonu léeg-léeg dañ faral daje ci concours ay way benn waaye taxaw kii yorul fooy préparé wul waaju way téeméeri bay te préparé wul waaju ko mokkalu ko woon ñëw di tari li ngay yëg ci def ñi di wax koy olof yu leer naan ñi noonu la way yombee woon te buñ daan way dañuy wax lu am solo moom la xasaan meloon ba yonent bi naan ko wayal nga bayyul sax yonent ci ñi koy ŋàññ ñu jibril mu ngi lay dëgëral kon loolu aay sa meloon imam ibn Shihab mu ni mu Ali ibn Abi Talib dafa dugg ci Aïcha benn bis nee na bi mu génnee mu ne wallahi ma sami'tu qattu ablaga min Aïcha laysa rasulullah musuma gis ku gën a fasaax ku gën a leer làmmoñ ci Aïcha xanaa yéen de yéen bi dama ma jaaxal ne bu loolu moom dama naan gisuma ku gën a boy gën a leer làmmiñ Aïcha noonu kadalika imam ibn Hisham mu ni ربما روت عائشة القصيدة ستين بيتا وأكثر لأنك من جيجي ديك تلين لا أي وي أي بيت عرب يندر وقت من أشعار الجاهلية تخم جل لولو أمنا تجاني نيغا خم نيوي جان خم فأمنا خم وطق بوي جان نيغا خم يدني كم سدف بك ولم جيجي دكم جنبا خم لكي جان سوال لغة موي شعراء الجاهلية موي عرب يندكي يندر وي يوم فرقة يوم جليل يوم أقبل ñoom naabixa gaa yooyu dañoo mënoon a wax mën a wax ba nga xam ni subhanallah da nga gis koo xam ni mu mënee wax du gis ci koo xam ni mu ñaawee làmmal ah loolu du caagee wax yeeg daan jàng lañ koy jël waaye xëy na rek lañ la soxla ak pour nga dégg ah ah wala jëriñ ñoom ñaar ku leen daan rafetante amul xam nga kenn ki lan la ma wax morom mu ne ko sa yaay dafa sii sa sii sa sii ba bu séenee ay gan bi ñëw xam arab yi ñoom dañ doon taal taal bi ku ko séen rek mooy wane ne kii daa bëgg am ay gan ne ko sa yaay dafa sii sa sii sa sii ba bu séenee gan dinañ puuli alam naay taw leen ci kaw sax ak ndax ko fay gis nga yooyu maanaam baati arab lañ ci doon soxla loolu aadina da ko doon mokkal yooyee ndax fasaa ada daa nekk ñi jàng arab xam nañ loolu melo kon daal li ma ko wax mooy Aïcha radiyallahu anha imam ibni Sirin mu ni soxla na jëlee ci Ahmad mooy déglu naa xutba Abu Bakar déglu xutba Omar déglu xutba Ousmane déglu xutba Ali muy xulafaa yooyu yëpp waaye mu ne fa maa sami'tu kalaaman fa maa sami'tu kalaama min fami maxluqin afxama wala axsana minhu ah min fi Aïcha déglu naa Aboubacar déglu Amar déglu Asmaan ah déglu Ali waaye musuma déglu koo xam ni wax dañuy wax jot na ci gémmiñ ko boy ba mel ne kon loolu su ma yi ko yàlla mayoon la kon dafa mel ni waxtu dab nañu kon ñu ngi tënk noonu xam naa ne suñu doxaay sax yow maanaam bëree tut ñu ngi ci jot jot paandal bi suñu jëntal ko ñu ngi ñaan suñu borom bool ñu defal tawfiq def suñu jéggal fop هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وعلى اله واصحابه اجمعين